tu ne peux pas Doudou, tu ne peux pas tey occulter la transhumance de Thierno hmm. en pleine campagne. c'est pas de l'information. c'est pas loolu loolu gars on est d'accord de information parce que Thierno est un. habitué des faits est un multirécidiviste <laughs> en matière de. transhumance na bu dëgg yàlla euh, euh, Thierno Lo ku ko xam-xam ko ci transhumance. kenn la moom juddoo ba tey mi ngi transhumé <laughs> man sax ñàkk jom a tax may wax si jënd loolu waaw te teg ko tegal ma ko vraiment xam nga ne lii muy bind APD nga xam ne moom dong moo fi ne APD amul militant. non am na benn militant waa ji waa ji toog si gannaaw. waaye est-ce que du doon man man ce que je veux mooy. si l'information est vérifiée. Hmm. abu nee na est-ce que. non xoolal liste bii xam nga bii la si ñaaw mooy. Thierno Lo jamono socialiste ba nga fa euh, euh, ba Abdoulaye Wade ñëwee mu daw làqatu ci ginnaaw njëm euh, si yàlla sunu sunu maam. Iba Der Thiam ay setu xaaral mu jóge ci ba mu nekk ci CDP fexe ragajeeru duudu lox na glace fexe ragajeeru xool duudu mu ragajeeru Abdoulaye Wade fexe ba. ay setu xaaral may ma rek fexe ba ba pëtaxlu. ci Ablaye wad nit kenn du top topp ba mu sës. Macky Sall ñëw Thierno Lo def la grand saut te te lépp nag Thierno de commencé yuuxu xaste ngañ ba pare dugg. <laughs> stratégie la. wa tukul, loolu stratégie la mais nak bi nak mom bi nak vraiment moy last cool bi mom vraiment Lo <clears throat> bi de. ay bu fa ñu faté ne xaaral ñu faté né Lo ci digënté bi. dernier minute je Sall na grand saut dem Boun Abdallah malheureusement pour lui mu dem Boun Abdallah. parce que Boun Abdallah a soutenu la coalition passive. a soutenu. la coalition passive. la coalition Boun Boun John Boun hmm. non non dama ne non dama ne dama communication dama lay wax si. Euh, euh, parcours qui la lay dem na ci. non, non, non coalition existe coalition boobu moom moo fa nekk. moom moo bind communiqué bi waaw dégg waaw doo ma <laughs> coalition boobu existe gis nga Adama Fall bàyyil di jàppale kii ngay jàpp gis nga mu ŋaaw gémmiñ yéen leen Doudou ko waree de te def leen du goro place bi Doudou Coulibaly nu mu ŋaawee gémmiñ gi xoolal def na nii fas yéen a wax. bu ci wax de. léegi. Thierno Lo mii. fi ma commencé woon wax ñi bëgg a brouillé sama communication mooy Thierno. mais war a wax ñun ñoo war wax. waa waaw defal naa ko rek. ñun ñoo war a wax waaw waaw doo may ma déedéet du ma la may de. léegi ñun ñoo war a wax. Thierno fi ñu toll addis da nga def sabotage ngay def léegi Thierno ba euh, euh, ca ca ca fin ba mu martalu dem ànd ak ndeysaan jëm si yàlla bun Abdallah foofu yàlla ci diggante bi yàlla moom bun Abdallah hmm. Thierno di végété Thierno di végété di végété di végété di végété di végété di xool xam nga comme les transhumants rek di végété di xool fan la. Euh, garab De bi di végété di végété di végété boy yi ñëw. temps gis nañ ko muy wër plateau Sénégal gi yëpp heureusement ba comme man daf maa mere ñëw ci sama plateau ndax fa ñëwoon kon gàcce dal ma man man ma humiliation la Mamour Cissé la recevoir fii. kan Mamour public confession. Mamour. Euh, euh, Mamour Mamour. jéggi tale. da ko siiwal da ko siiwal yow. ma siiwal ko dem passé. humilier ma dem dem passé dafa ñëwoon pour pour pour pour. pour rek a yeeru fay naka de la use use ma utiliser ma man jeeg bi pour piis euh, Pastef waaye amu fa ndax dafa piis booy booy mbéj ko moo tax Mamour gis kenn séenu ko ci kii mais bii xool Doudou bàyyi si téléphone bi nga sëgg te wax ci wax ji. bii ah, waaw mais dama wax may wax. bii ñu war a wax kañ. Thiel mi. bàyyi ba lii mais teenu loolu rek newu ak vraiment ça ça ça c'est une honte hmm. une honte nationale ah wax nga tàggatoo waal wax joxe sa message 17 novembre émission bi li ma li ma li ma fal foofu laay commencé fay commencé Ousmane Sonko dafa tàggu ci benn meeting waaw ah. ci biir campagne bi hmm. mu le 17 novembre dañu war a jeexal système bi dañu war a ci système bi ak système bi waaw il a parfaitement raison hmm parce que vidéo yi waaw moo ñu wara paré ci système bi parce que système bi c'est la transhumance deug la système bi c'est l'antivaleur deug la système bi moy waccu lekkaat deug la système bi moy daw làqu D'accord. la système bi moy wax lu dul deug deug la système bi moy désinformation système bi moy manipulation deug la donc le 17 novembre la wara simple système bi sanni feulé deug la merci parce que moo ko wax. moo ko wax kon pare ko silence bi abu abu kii. Euh, dafa am ñoo xamante ni doo bàyyi air théâtral jël. dafa am ñoo xamante ni du information. kii du information waaw nga dëgg rek kii. parce que lii. <laughs> def na lu miin. <laughs> def na lu mu xam. def na dëgg dëgg dëgg. déglu rek. def na loo xam ne ci la bokk. tey dama lay limal ñu def lu ñu xam. kan la. Thierno def lu mu def na lu mu xam. Ah. inconsolable. lu xew loolu la ñuy wax ci décès Mata Moussa Faba bi. Papa ak mu joué théâtre. Euh, Thierno su nekkee lii. affiche bii fàttali ma suba indi Papa Alé Niang fàttali saa yi Papa Alé Niang ku am sëriñ la ndaxte. pourtant nag yaa ngi damay fàtte waaye sànq da nga yàq sama bos. parce que sax génn na. génn Matar génn ñëpp rajo yooyu yëpp génn nañu. Ah, encore que les camouflés yi damay wax liste bi fàttali ma suba ab abu si yow laa compté nga fàttali ma. Mimi Touré vaar waaye kii du ma bàyyi ma àggali ci vaar ma vaaraat ma kii euh, Birame Seck mu baax mi nga xam ne léegi sama xarit bu bees maa ngi jot daf ko sama biir xol mu euh, euh, question yi mu posé mi ne ah, brusquement dafa riche ba jël ay oto di may ay oto addu dama leen limal waaw continue nga ni ñan ñoo def lu ñu miin kii Thierno Lo def na lu miin waaw ah, mooy wacci lekkaat ko jóge ci Abdou Diouf ba ca Macky ay waay sama réew dama ne duudu Coulibaly <laughs> te duudu ba ma xamal leen duudu caatam ca loolu la ko tuddee. Mimi Touré Mimi Touré réalisateur euh, ki Ibrahima. dindi photo bi wane leen di nga may bi de voilà merci beaucoup. <laughs> le visage de la honte. <laughs> turandoo maam Thierno. xam nga. turandoo maam Thierno moo def lu mu minati. moo defati déglu rek defati na. ak ah, mën Aminata Touré def na lu mu miin. waaw Aminata fu mu jógee AG. AG la jógee ñëw AG. delluwaat na delluwaat na. poste lay dawe waaw mom poste mo koy dundal. mam boy Boye Diao def na lu mu miin. ah bon fu mu jógee. AFP la jógee. ah bon. waaw. loo xawma ko maa la jox information. merci Adus ak kan. Samba Samba Ndiaye def na lu mu miin. Samba Ndiaye ma ci dëkk mom Samba Ndiaye mom kooku mom kooku mom directeur cabinet président de la République def na lu mu miin. kan la ci. may taw mari def na lu mu miin na ko may taw tamit coutumier def na lu mu miin dëgg la traître la dëgg la def na lu mu miin lu mu xam la lu mu xam lu mu miin la c'est vrai Doura Balde def na lu mu miin waaw euh, euh, ba ah, def na lu mu miin tàmm nañ ko c'est-à-dire ñi transhumé yëpp dañoo def lu ñu miin ay na mbóoj ay na bët li mu def moom da koo nam jamono <laughs> Saint Thomas. wóor na yàlla. mère bi yow la woo yow mère moom yow sommation interprétative yaa ngi naka nàmp yow dafa rëy. jamonoy sommation jamonoy Saint Thomas. c'est-à-dire. oui ça a bëri nañu. askanu Sénégal. voici le système regroupé régie. da ngeen may jàllaleel photo yooyu photo yooyu ñu dajale len des fois di leen teg sénégalais yi identifier leen les jàmm de la république mais les jàmm de la république du bété tam nañ ko le premier parti bu Ousmane Sonko bëggoon militer réew mi la tudd waaw ah. def na lu mu xam momit it <laughs> kay fu mu bokkoon Malick Seck nag El Mamiko ak ak biram Souleye def nañ lu ñu xam ñom tam lu ñu mais ñom sax mënañ am parce que